bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaai wa imaamil mursaliin sayyidina wa nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka antal aliimul hakiim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 mu doon xéewal yi nga xamante ne daf ñu ne ci alquraanul karim ci suuratul ibrahim ndax mooy buur boo xamante ne daf ñu ne wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna al insaan la zalumun kaffaar buur yàlla tabaraka wa taala ne ñu mooy buur wi nga xamante ne moo ñu yenkeewal wërsëgal ñu jox ñu may ñoo lépp luñ ko ñaan waaw buur yàlla mu ñuy won fii ne mooy buur bi nga xamante ne moo ñu may lépp luñ ko ñaan lépp lu ñu mébét te ñu soxla ko te mu nekk fa moom kon moom yàlla buur wi tabaraka wa taala moo ñu ko jox ndax ci nguuram la nekk ci moomelam la nekk nekkut ci moomelu scientifique nekkut ci moomelu buxaaba nekkut ci moomelu philosophe nekkut ci moomelu kat nekkut ci moomelu borom alal wala weneen borom xam-xam moomeel bi daal kenn képp ko moom te ci nguuram la nekk mooy buur yàlla tabaraka wa moo tax mu ne ñu wa aataakum mooleen jox may leen wërsëgal leen la nga xamante ne min kulli ma saaltumuh ci lépp li ngeen ko ñaan ci nguuram la nekk ci moomeelam la nekk te moo koy joxe ba tax na loolu ngeen ko ñaan loolu ngeen ko soxlaal am na lu ngeen wax am na lu ngeen waxut am na la ngeen xam am na la ngeen xamul lépp ci nguuram la nekk moom yàlla buur mi tabaraka wa taala ba tax na mu ne ñu wa aataakum moolen jox min kulli ci lépp loo xamante ne maasa altu saaltumuuhu laaj ngeen ko ñaan ngeen ko soxlaal ngeen ko walla waxu leen ko sax waaye xam na ne loolu mooy li gën ci yéen yàlla nee na man mii maa ko yore te maa leen ko jox ba tax na bu ngeen fi nekkee naan dangeen di lim xéewal yama leen defal bu ngeen fi nekkee di lim xéewal ya jóge ko fa man yàlla ma dottil leen ko moo tax mu tudd turu xéewal bi ci boppam waaw waxut ne bu ngeen fi nekkee di lim la ma leen defal déet nicmatallahi la wa dafa tudd fi turu xéewal bi idaafa ko ci jëmmam jalla wa ala subhaanallahi amma yushrikoon mu tudd xéewal bi ci jëmmam mu taafantaloo ko ci boppam turu xéewal bi ci boppam la tudd mu jël xéewal woowu moomale ko ci jëmmam ne man mii maa moom nicmatallahi la wa waaw waxul wa in tauddu nicmati waaw am na beneen aaya bu mu wax wa atmamtu aleykum nicmati waaw keroog ba ma leen matalal sama xéewal wi waaye fii daf ne wa in tauddu bu ngeen fi nekkee neen da ngeen di lim dangeen di xayma di géem konte nicmatallahi xéewalu yàlla ba leen yàlla defal yàlla nee na laa tuxsuuha du ngeen ko musa matal du ngeen ko musa dajal dingeen ngeen ko musa peeg waaw li ngeen di perte ci seeni waxtu muy ëpp li ngeen di géem lim ndax kenn ku nekk rek léegi nañ leen jël misaal nañu jël misaal ñu ne population senegaal wala population Ndakaaru rekk kese kenn ku nekk nanga toog xayma la la yàlla defal ci xéewal naa jour boobu de kenn du liggéey kenn du xëy kenn du taal añ wallahi kenn du liggéey kenn du taal añ kenn du xëy kenn du am jot sax nekk ci sa bopp ndax bu ne kenn ku nekk na nga xalaat xéewal bala yàlla defal nanka lim tëxañ ko ci dossier ci këyit après nga jébbal ko imaamu gox ba nga nekk imaam bi dala dul tal sax ba mu di la nangul sa loolu nga andi moo tax yàlla ne bu ngeen fi nekkee naan dangeen ngeen di géema lim la ma leen defal ci xéewal sama xéewal ya ma leen defal du ordinateur moo ko war a lim du xelaat moo ko war a xayma du ngeen ko sax mun moo tax yàlla insisté mu ne laa tox du ngeen fi nekk di ko peek du ngeen ko mos a peeg tamit du ngeen ko mën a lim te du ngeen dangeen dul doon ña koy ña koy ña koy mën a konte sax bi di ko xam nan la tellement na mu bëri na mu xóote xam-xam bi sax am na fu mu yem am na yeneen xéewal bu nekk ci jëmm doomu aadama kenn xamul xéewal woowu fu mu nekkee ak la koy doxal danga ko xamul sax waaw wala yàlla nee na wala yàlla ne la waaw sama xéewal ya leen defal du ngeen ko mën a lim du ngeen ko mën a xayma nañ leen ne waaw waaw yàlla mënuñoo konte xéewal ya ñu defal mënuñu koo lim waaye bur yàlla mi ñu bind gën ñoo xam suñu bopp moo tax mu ne ñu li fi nekk kañ mooy innal insaana naka doomu aadama bi innal insaana naka fàttekat bi de innal insaana naka ki mu bindi mooñaale ko mu doon kay fàtte waaw fii insaan la yàlla jil waaw ah, fàttekat bi naam fàttekat bi waaw cinq ans ci ginnaaw bi nga doon am juróomi at nanga nga meloon buñ la ko nettaliwul munoo koo nettalil sa bopp boo ko naree def tamit am na am na loo xamante ne fàtte nga ko léegi-léegi nga dégg waajur bi ne bu mu amee juróomi at la ko lii dal bu mu amee juróomi at la meloon nii bu amee juróomi at la doon def lii yow lu tax waxaluloo ko sa bopp tax ndax yaa ko dund yaa ko doon def ci yow la nekk mais lu tax fàttalikuloo ko en ce moment mémoire bi mënut a enregistrer dara kon jëmm fàttekat bala yàlla tudde nangul ne fàttekat nga waaw moo tax mu ne innal insaan naka fàttekat bi nga xamante ni moom laa bind mu doon bani aadam mu doon nit la wolof yi di wax nit yàlla suñu borom tuddee ko ci langaasu yaaram ci baatu yaaram mu doon fàttekat yàlla nee na naka nit ki de moom du len na ludul kay dëkkee di tooñ boppam waaye daa nekk koo xamante ne weddi njekk ba ko yàlla mooñaale lu yomb la ci moom kon nga gis nit ki yàlla nee na innal insaana naka nit ki de la daluman kafaar da di kuy dëkkee di tooñ boppam saa su ne mun ngaa tooñ sa bopp say jëmm mun ngaa tooñ sa bopp ak say cër mun ngaa tooñ sa bopp ak sa xel sa xelaat mun ngaa tooñ sa bopp ak anam ji nga xamante ne xëy na sa xamoo ko waaye booy dëkkee di tuub di jéggalu di ñaan yàlla mu suturaal la mu di la jéggal amaana loolu mooy lay faxas bàkkaar yooyu nga doon jëf ci sa xel wala ci sa xelaat walla ci say cir yi nga xamante ne dañoo feeñ ci zaahir yàlla nee na doomu aadama bi di fàttekat de daa dëkkee di tooñ boppam daa dëkkee di tooñ moroomam ñu nu neen léegi léegi ñu jéggi wante dayo waaw léegi léegi nga gis ki ma jéggi dayo léegi léegi nga gis koo xamante ne moo may jéegi dayo waaw léegi léegi mag ñu bokk jéggi dayo keneen waaw comme niñ koy gisee suñu biir rekk waaw noonu yàlla bindee waaw léegi-léegi dañuy ëppalante waaw dañuy jéggi frontière u jàmbul tilka xududullah léegi-léegi sax yàlla nañu falaate ata bu leen ko bu leen ko pénétrer soxna mari waaw kañ yàlla nañu tilka xududullah li ma leen trasel nii mooy sama garde-feu mooy sama frontière fala taataduha bu leen ko pénétrer bu leen ko jéggi bu leen ko xëtt waaye léegi-léegi nga gis doomu aadama xëtt frontière wu yàlla barrière yàlla léegi-léegi mu buuli ko fële waaw den taxaw fële ne et après waaw kañ léegi-léegi yàlla nañu tilka xududullah lii mooy garde-fou ba ma leen tax taxawal fii waaw garde-fou bi ma leen sampal fii sama frontière bi ma leen rëddal nii fala taqarabuha bu leen ko jege wallahi léegi-léegi nga gis doomu aadama ba ñëw jege frontière yàlla mu ne waaw yàlla e après jege naa ko luy xew allahu akbar allahu akbar léegi-léegi yàlla ne ñu wa tilka xududullah loolu ma leen wax ni mooy frontière yàlla mooy gërde fo ba leen yàlla sampal fii waaw fee mu ne ñu fala taataduha ko jéggi fii mu ne ñu falaa taqrabuha bu leen ko jege waaw waaw beneen aaya bi mu ne ñu tilka hududullah fii mooy frontière yàlla waaw mu ne fii mooy frontière yàlla de waaw mu ne ñu waman yataadda hududallah képp ku jéggi képp ku jege képp salfaañi képp ku dem taxaw ci frontière yàlla bam la ne bu ko jege képp ku dem jéggi frontière yàlla bala yàlla ne bu ko jéggi yàlla ne fa ulaika humu zalimun waaw ñooñu ñooy ñi tooñ ñooñu dañoo tooñ moo tax yàlla ne ñu innal insaana naka doomu aadama bi de la zalumun kafaar ku dëkkee di tooñ boroomam la ki dëkkee di tooñ boppam la waaye ki dëkkee di tooñ moroomam la waaye kii gaaw a weddi njekk ba ko yàlla defal waaw waaw ginnaaw aaya bi bu ñu xoolee buur yàlla mu ñuy wax lam ñu lam ñu fi tàggatal mu ne ñu bu ñu xoolee aaya 31 ci suratul Ibrahim buur yàlla mu ne ñu man yàlla may ki leen bindal juróom ñaari asamaan ci kaw waaw léegi-léegi juróom-ñaari asamaan ci kaw weer ya fa nekk biddiw ya fa nekk jant ya fa nekk léegi-léegi nga gis doomu aadama jël ki bindi loolu bañ koo jaamu muy jaamu weer beeg biddiw beeg jant bi waaw loolu teytu tooñ la la yàlla jeexalee aaya bi doomu aadama yi jaamu weer di jaamu biddéw di jaamu jant ñooñu tooñ nañu yàlla tooñaange boo xamante ne ah mu ngi noonu la yàlla wax ci njeexantalu aaya doomu adama ku dëkkee tooñ la tooñaa nu muy tooña dafa bëri léegi mu tooñ boromam ci xeetu jaamu yàlla ja muy jaamu léegi mu bàyyi fi borom mbindaafoo ni muy jaamu mbindaafoo ni loolu xeetu tooñ la waaw ki bind asamaan léegi léegi nga bàyyi borom asamaan ngay jaamu asamaan di jaamu niiri wal ard ak juróom-ñaari suuf bu ne nongu ci sa suuf waaw ngay tabax lépp ci kawam waaw léegi-léegi nag nga def loo xamante ne ci kaw suuf si kenn mënu koo koo sew léegi-léegi nga jéggi dayoo yow doomu aadama ci kaw suuf si dem sax bay bay tuur deret ci lu dul dëgg di faat bakken ci lu dul dëgg waaw comme suñu autorités yi lu ñuy géem sàmm ci bés bu mag ba nga xamante ne ci la ñu dégmal si nii muy woote suñu maam ju baax jooju ju seex Ahmad Bamba rahimahullah wa rahmatan waasi'a képp kuy mël ci di dem wuyu ci woote boobu waaye waaye waaye waaye waaye na nga teey dal na def ndànk da Sëriñ Fàllu di wax rek rahimahullah daw ndànk dal ndànk waaw daw ndànk àgg ndànk waaw slogan yooyu gis nga buñ ko doon appliquer ci jëfin ñu bañ koo wax ci làmmiñ mu yem fa wallahi ah, la gis ci tali yi dina dina dina wàññeeku waaw bu dul ñàkk tamit ah, ni muy jéggee nii dayo du mat du fa àgg su ko defee doomu aadama mooy kuy jëfandikoo dàbba yooyu waruwaay yooyu doomu aadama yi ñoo koy jëfandikoo kon bañ a tooñ bokk na ci nga jëfandikoo sa xel ci anam ba ngay dundee ci kaw suuf si buur yàlla nee na bokk na ci la doomu aadama di tooñ boppam wala muy tooñ boromam wala muy tooñ moromam wa anzala min as-samaa'i maa'an fa axraja bihi min na samaraati la lakum buur yàlla ne bokk na sama kawtéef ya ma leen defal man yàlla may kiy wàcce ndox ci kaw asamaan si ndox boobu di meññ ay meññeef yi nga xamante ne da ngeen koy jëfandikoo mu doon wërsëg ba ma leen tàggatal waaye léegi-léegi nga gis doomu aadama bi mu def ci meññeef yooyu loo xamante ne buur yàlla santaanewu ko waaw la buur yàlla santaane léegi-léegi mu salfaañe ko masalan nang si génnee azaka nang si génnee sarax léegi-léegi doomu aadama bi daal di jël lépp taxañ def ko koppar après mu di mébit ngir mu delloo lépp ci jëmmam la ci yàlla bëgg di ko xam bay mu di ko def kayitu tooñaange la mu ngi ni <coughs> waaw wa saxara lakumul fulka li tajriya fil bahar man yàlla maa leen tàggatal ay gaal yi nga xamante ne dañuy yeb lu diis ne nongu ci kaw géej gi ñuy daw di xuus di jóge ko fu sori di dem fa leen neex waaw bi amrihi ci sama ndigal la ci sama ndiggal la gaal gi di def nangu ci kaw géej gi waa ci sama ndiggal la géej gi di nangoo stable ngir mu yóbbu gaal gi ci sama ndigal la de cargo yu ngande yi conteneur yu bari yi laajal gaay di andi conteneur fañ koy jëlee lañuy def ci wiir conteneur waaw léegi-léegi nga war a sant xéewalu yàlla delloo yàlla njukkal ci namu la tàggatalee géej gi sa kontineer bi jóge ko fu sore mu ne nangu ci kaw gaal gi gaal gi ne nemm ci kaw géej gi ci ndigalu yàlla bém la ko àndil fa nga bëgg amuloo ci benn loraange kon war ngaa sant yàlla waaye léegi-léegi gars yi dañuy ñëw voilà la ci conteneur bi ñu di ko defee loo xamante ne mën na si ñàkk xëytu tooñaange la te doomu aadama moo koy def waaw wa saxara lakumul anhaar ay sewndi ay dex yu nga xamante ne mu ngi nii comme suñu lac de guerre bi nga xamante ni fii la ñu ganese àddina fekk ko fii waaw su ko defee gars yi dem baranse fa seeni tiwo tasaare ndox bi ci askan gi waaye léegi-léegi euh, nga daje gaay yi affaire bi mel tullik male waaw ñu facturer la loo xamante ne jëfandewuloo ko xëytu tooñaange la doomu aadama moo koy def ak yi nimel ak yi ni ak yi nimel mel waaw te yàlla moo ñu wërsëgal lak de guerre gi waaw lu tax duñ ko war a mën a jëfandikoo ci anam bi nga xamante ne day tegu ci yoon waaye nag léegi-léegi nga gis facture bu wàcca boo xamante ne danga nga naan déedéet Eh, jar dina la jaral sa nga sol sa dàll dem ci kër googu ne leen li ngeen ma bindal nii du man maa ko consommé loolu yëpp dafa bokk ci xeetu tooñaange kon alquran bàyyul dara waaw te doomu aadama moo koy def moroomam loolu xeetu tooñaange la ak li ni mel wa saxara lakumu shamsa wal xamar waaw yàlla nee na man maa leen bindal tàggatal leen jant bi nga xamante ne ci ceeñeeru jant bi dafa am la mu jokkalante ak seeni dund ngay war a liggéeyu heure di tardé def nga ko benn yoon comprendre nañ la def nga ko ñaare yoon comprendre nañ la nga bugg koo def yoonu tool yaa ngi tooñ sa patron yaa ngi tooñ sa patron ndax heure bi nga war a liggéey si jant bi heure jant bi bu naree fenk day fenk na muy doxee lay doxee xaaru la yow yaa koy xaar walla nga war kaa jiitu waaw ndax moom day dox ci ndigal des na tuuti mu fenk des na deux heures de temps ngir mu fenk bu neree fenk nag ku mu fekk ci kaw lal bi nag ah yow yaa nekk ci kaw lal bi mais jant bi moom mu ngi def liggéeyam kon bañala a la tooñ ka ngay liggéeyal ci doxalinu jant bi ci waxtu boo defut loolu rek mucc nga ci doomu aadama yi dëkkee di tooñ waaye boo ko defut nag bokk nga ci ñi la di wax ne innal insaana la zaluman waaw doomu aadama bi de daa dëkkee di tooñ kon fexeel nga seppi sa bopp ci tooñkat ñooñu gannaaw bi nga amee contrat liggéey fa ngay liggéeyee te ñu jox la waxtu wi nga xamante ne dafa dëppog doxalinu jant bi boo bañee tooñ fa ngay liggéey wala ka ngay liggéeyal na nga respecté heure bi nga xamante da nga koy liggéey te heure boobu dafa am relation bu mu am ak doxalinu jant bi yàlla ne bi léegi maa leen tàggatal wal xamar ak weer bi waaw weer bi tamit ndegem yow ca ngay liggéey kon kala jël ngir nga di ko liggéeyee ci weer bu dee ngeen déppoo ne bu dee fan weeru fan bu mate dinga am sa àqu ñàq ba nga fa doon tuur kon yow mi di borom entreprise bi yow mi di borom matériel bi yow mi di seefu ña ngay liggéeyloo boo bañee bokk ci innal insana zaluman ngallawaay bu weer bi di dee la yonent bi wax ajur ujura qabla an yujafa araqahu ngallawaay na fay seen liggéeykat ñi bala seen ñaq yi di fendi waaw kañ yàlla def nag ah gaa ñu xam moom ñoom bokkuñu si ñooñu ñoom moom dañuy teel a dañuy teel a dañuy teel a woote yal na leen yàlla fii suqali daara ja amin waaw kon yow mi chef d'entreprise bi boo bañee bokk ci ña yàlla di wax ne innal insaana naka doomu aadama bi de la zaluman aji tooñ la boppam ka dëkkee di tooñ boppam la waaye ki dëkkee di tooñ moroomam la waaye ki dëkkee di tooñ boroomam la tamit boo bañee bokk ci ña yàlla étiquette étiquette bi ni mel nga la waaye na sàmm wanteg weer bala yàlla tàggatal ngir nga di ko wara a mën a seralee xolu ñangay ngay liggéeyloo yàlla ne daa i bay ni ñooñu ñoo fi nekk sax dàkk di dox ci seen service waaw service weer bi du yàlla moo koy bénéficié woo de déedéet yow doomu aadama bi yow la yàlla ne yaa koy bénéficié woo yaa koy njëriñu service u jant bi du yàlla moo koy bénéficié wu de déedéet yàlla amu ci soxla de yow doomu aadama ba yàlla créé waaw defalal la xéewal bi ni mel yàlla nee na yow yaay bénéficié wu fonctionnement jant bi ak fonctionnement weer wi moo tax mu ne daa i bay ni ñaari mbindaafoon la ñi nga xamante ne yéen lañ fi nekkal di leen doxal seen service anakan moo jël weer wu dee sareeram nee neena lii yàlla laa koy jox waaw wala yàlla koy yàlla laa koy yóbbul waaw anakan kenn te yàlla moo la defaral climat bi nga xamante ne ca ngay sukkandiku ngay ragle sa fin de moo la defal climat bi nga xamante ne sa ngay sukkandiku nga di si régler sa waxtu xëy ak sa waxtu wàcc waaw yàlla ne nag maa leen defaral wa saxara lakum bi léegi maa leen tàggatal climat bu ñu naan leyl guddi bi nga xamante ne mu ñuy wax ci sortu naba wa ja'alnaa nawmakum subaatan maa leen defaral seeni nelaw mu doon dallukaay ci kañ ci guddi waaw ci guddi waaw yàlla nee na maa leen tàggatal climat bu mu naan leyl mu doon guddi boo xamante ni climat bu fiix la ngelaw bu fiix la yi yëpp daray scientifique bokk ci daray philosophe bokk ci daray buxaaba bokk ci daray gisaanekat bokk ci intellectuel moom waxi noppi waaye yàlla ne ñu ba léegi maa leen créel tàggatal leen wan nahaar ak bëccëg bi nga xamante ne fa ngeen di war a mën a demee sàkku la nga xamante ne mooy seen wërsëg kon wërsëg bëccëg lañ koy fàggu kay bay ci tool ba cultivateur bi soxna Mari ci tool balay dem cultiver la muy bay commerçant bi day dem commerce bëccëg naam am na ñu ci nekk ci guddi sax waaye nag ñañu xam ñu nekk ci digg commerce comme nu mu waree ñoom bëccëg lañuy ubbi maanaam bëgg laa wax ne commerce bi nu muy fonctionner bëccëg du fonctionner noonu guddi donte am na ñuy jaay guddi waaye nag yàlla nee na maa leen créel bëccëg ngir ngeen di si war a mëna a niitoo ngeen di si war a mën a xàmmee ràññitle li nga xamante ne du dul bëccëg mënul leen ko servir climat bëccëg bokkut ak climat guddi waaw wa ja'alna layla libaasan yàlla nee na maa leen defal guddi mu doon mbàjj boo xamante ne day ñëw muur leen waaye nag wa ja'alna nahaara ma'ashan maa leen defal bëccëg mu nekk fàggute fu kaayu bi waaw kañ na nappkat bi na dem napp sàmmkat bi na dem sàmm kenn ku nekk na dem fàggu la ko yàlla palaasel ci fa mu war a fàggoo sama ñama xam sama gaay ña ma xam nañ dem takk seeni karawaat dem toog ci bureau bi waaw na nga signé li nga xam nanga bind li nga xam bul signé lay lor nit bul bind luy lor nit waaw donte sax nit ki dafa juum waaye bindal la nga xamante ne danga naan jéggal naa ko lum lay wàññi dara dalay gën a yokk rek waaw yàlla ne maa leen defalal climat yooyu noonu yëpp waaw buur bi ne ah li fi nekk kañ wa ataakum moo leen may min kulli ma sa'altumuhu lépp li ngeen ko ñaan wa in ta'uddu bu dee da ngeen nara lim ni'matallahi xéewalu yalla yam leen defal laa tuxsuuha du ngeen ko mos a matal du ko mos dajal xanaa lu fi nekk mooy innal insaana naka doomu aadama bi de da di jëmma joo xamante ne dafa rangoo ñaari gala ñaari garaat la doomu aadama bi rangoo garaat bu njëkk bi dafa galaam bu ngi naan zalum tooñ tooñ boppam tooñ boromam tooñ moromam kafoor dadi ki gaaw a weddi njekk yàlla mun na laa defal xéewal yàlla mun na laa may nga nekk ku nekk ku am xéewal ba ko fa yàlla waaye seytaane ñëw installé ci sa mémoire noo koy jëfandikoo waaw bul toog gaañi gaa ñi yaa leen raw bul wax ak gaa doo seen maas bul dem ci seen jàkka yi waaw waaye buñ lay gis ci jàkka yi chaque fois dañ lay yàpp dañ lay miin del julli kër ga subhaanallah allahu akbar seytaane ñëw installé loolu ci sa bopp bul dend gaay sappe yi doo seen maas waaw jàkka ji nekk tout près ci sa wetu kër nga dégg yàlla sala ngay lal sa sijaada gis nga seytaane ñëw installé si sa mémoire pour fréquenter jàkka ji gars yi buñ lay tàmm di gis ci jàkka ji à chaque fois dañ lay ñaan pour fréquenter jàkka ji bu lay gis ci jàkka ji à tout moment dañ lay yàpp dañ lay miin dootoo dootoo am dayoo seen lan nga doon lan nga doon xéewal bu la yàlla jox moo tax doo dem néegu yàlla doo dem jaxasoog juluti yàlla yi ci néegu yàlla seytaane ñëw di installé ci sa mémoire ay xalaat yi nga xamante ne subhaanallah xataa yëre yëre sol sa costume wallahi gis naa jëmm joo xamante ne costume lay sol sol pantalon rëdd costume pantalon rëdd pantalon ba mu sol bañ muy lemu day taxañ heure julli ba mu wàcc dem sol jàllaabeem nee na day këpp këppal moo ne kooku daa xamul bu xamoon yow nga sol sa yére kan moo ne kan moo la ne ana li la wóor ne yaa koy simil sa bopp est-ce que duñ la ko simil te buñ la koy simil tamit est-ce du si am yoon xotti ko tereet waaw tas ko tasar loolu nga bañ a sol di ko jaamoo yàlla ngir alignement ba nekk ci rëdd bi mu bañ a lemoo parce que bëggoo toog ak moom yow yàlla wërsëgal la yére bu toll nii tubé yu pantalon bi nga war a sol nga ne lii duma ko jaamoo yàlla parce que bu ma toog ak moom day lemu wallahi bu neexoon yàlla mu doonoo la melokaan joo xamante ne bu ñuy simi pantalon boobu ciseau la ñuy dugal xar ko duñ fa nekk sax di tekki bouton di tijji fermeture beeg di simi loolu ciseau la ñuy jël dugal ko ne ko tereet comme danga ko bañ a jaamoo yàlla léegi ciseau am na si yoon loo si man dara mbokk yi ah am na loo xamante ne jaru ko fi de yàlla dañuy sant xéewalam ñuy wéy ci ndigalam suñu kémtalay kàttan lu ñu matale mu ñu ñaan ko mu nangul ñu ko lu ñu gàttañ lu nag ñu ñaan ko mu jéggal ñu ko mu soppil ñu ko defal ñu ko yiw lii rek a fi nekk lu lut lii dara nekku fi nasaluka allahuma an taxfir lana wa an tarhamna allahuma ya rabbi aati nufuusanaa taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñuy joxe xibaar ñu ngi ni taxaw nasaluka allahuma an taxfada bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahuma ya rabbana